Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV amaat nañu mbégte ak contentement dikkaat ak yéen ci émission bi ngeen tànnal seen bopp di ëttu xam-xam mbokk yi ëttu xam-xam tey ñu doxantu ba fii ci diwaanu Yaraax seet si fi seetkatu seetkat yi ki nga xamante ne nii layu ak pettaaw ak jën ba mu tiim lu mu la ca wax takkal téere te xam ne dara du ko dindi soxna Gédda Diop ñu fekk si ko fii ci diwaanu Yaraax dendandoo lool ak almeer yu Yaraax numéro bi ngeen mën a jokkoo ak moom moo affiché wu noonu ci bas écran bi. Yaye maa ngi leen di nuyu di leen fay ci yéen ñii di ma seetaan yéen waa réew mi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci ñi may seetaan rawatina nag waa bitim réew. macha allah ci nuyoo bu am solo bi ah, tey itam matale na waaye ni ñu koy defee rek ay bi bisi nekk saa bu jafe-jafe wala sax xew-xew amee ci réew mi ah, dañuy daal di ñëw rek eh, seet si la sëq ak yow waxtaan ah, ngir askan bi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñuy bàyyi xel saa su nekk mun ci jëlee njariñ moo am ci nag ay événement yoo xamante ne ni daanaka jë génn nañu ci waaye am ci ay événement yoo xamante ne ni ñu ngi ko dëgmal lu ci mel ni làmb ji nga xamante ne ni war na dox ci diggante Modou ak kii di Ama Euh, balaa ñu cay àgg am na beneen itam boo xamante ne nii euh, moom itam coow li bari na ci lool muy diggante Eumeu Sène ak nga xamante ne nii moo di Lac de Guiers numéro 2 euh, waaye balaa ñëw ci combat yooyu yaay booy li nga xamante ni yaa ngi ko tiim tey di wàllu layu ak pettaaw ñëpp ànd nañu maase ni mer gedd moom seet lu mu la ca wax xamal ni dara du ko dindi tàpp ko téere mën nañu xam secret seet bi lan la loo doon la wala loo jàng la. lu ma doon la ci sama maam. Hmm. man bolla la moy mooy lebu tukulóor dama ka don ci sama mam ki jur sama papa dañ ko seexandoog rap ki jur sama bay des rap bi delu ci dex gi ci foota ci dekk bu ñuy naan bañ da sës ci murtani sama effectivement léeg-léeg am ci yoo xamante ne li leen di jaaxal mooy que ni euh, guddi gi bu ñu sa kër euh, lay fekk nga samp béjjën ci sa bopp lal euh, ngay wax ni sax léeg-léeg am na xaal booy toll bi dafay wax ak yow ban secret nga ñu mën a jox tey ci béjjën bi. waaw béjjën bi bañ ma sampalee tuur yi ñu jox ma ndigal ci la ma ko sama sëriñ jox ba ma ko joxee daf ma ne képp koo digaaleel am lu la jaaxal ci moom. mu ne ma boo sampee béjjën bi soo jaarul ci turam sa balaa bërset béjjén bi dina la leeralal mbiram ba tax na nag guddi bu jot dama koy samp sama boobu bu bërsetee ma jël ko juróom ñeent bunt yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ma sànni côté bu ne ma soog ko teg ci suuf ñaan li ma bëgg mm-hmm. waaw li nga xamante ni d'habitude moom la ñu miin ci wàllu seet euh, mooy que ni nit ki dafay déplacé wu ñëw toog ci yow euh, léeg-léeg sax ma gis seetkat yi dañ lay jox ñetti pettaaw wala ñeenti pettaaw na la tuflil sa soxla euh, su ko defee nga daal di tufli sànni ci layu bi ñu door laa seetal waaye secret bi ñu gis ci Mère Guedda nit dafay nekk ba États-Unis wala téléphone gisuloo ko turam nga koy laaj rek ak wax ko li nga xamante ni moo nekk ci moom secret boobu lan la. waaw secret bi demee ba mën sa liggéey. Mm-hmm. dara du la jaaxal. man ku ma jox turam ak santam kese rek dama la wax sa soxla maa lay tegal lépp ndax li tax sama liggéey dama kaa mën te duma ci mos a fen hmm. effectivement effectivement daanaka fi nga xam ne fa laa bëgg jëm euh, balaa muy ñëw rek ci événement yi daanaka du soret lool seet euh, ndaxte saa boo demee ci seetkat bi euh, bu la seetalee faaw am ay sarax yoo xamante ni daf la koy digal ban njëriñ la sarax am ci ginnaaw bi ñu la seetalee ba noppi. sarax dina fànq musiba bu nar a ñëw mu bañ a egsi sarax dina ubbey buntu wax ne nag sarax dañ koy teg ci yoon dañ koy teg ci yoon wax ne am na sarax yoo xam ne teguwul ci yoon bëgg aaral kese la man ku ma gisul sarax ci yow duma la wax génneel sarax ndax duma gàddu benn bàkkaat di lebloo nit muy génne sarax te gisuma loolu bu njëkk dañoo sarax yi dafa yomboon eh, sama ñoom maam ak sama ñoom papa eh, d'habitude dañu daan wax ni la génneel goro wala génneel biscuit wala wala ay kayiti tabax eh, waaye léegi may dégg ay ay sarax yi cinq cent mille saraxu un million lan ah, war a seeral seeral sarax yi moom mm-hmm. loolu moom dese na maa leer waane man xam naa ne am na soxla yoo xam ne mm-hmm. sarax rek mën na faj aajo boobu saa nit def lu dara bu fekkee yow ka lay seetal mën na te gis na la mm-hmm. am sarax bu mu lay rek sa aajo day faju jarul sax ngay wuti ji looy laal effectivement euh, tey si tey ndax ndax du du yokk tiitaange euh, ki nga xamante ne dafa am soxla euh, par exemple man mi nga xamante ne nii samay poos dafa xaw a woyof xëy na bu ma ñëwee xëyee sax ñaar téeméer daf may xaw a të ma ñëw seet ci seetkat bi mu seetal ma digal ma saraxu cinq cent mille su boobaa ndax du yokk ak tiitaange ci man di nga am tiitaange xol te teg na la jaaxle teg na la coono te loolu bàkkaat la mhm. waaw. effectivement effectivement macha allah ci leeral yu am solo yi defe naa ni mënuñu woon a ñàkk ubbee buntu boobee nga xamante ne ni lu soxal àdduna warngal kàpp la yaay boy dama koy dogat dogatee xam naa ni gaa yi fi mu toll nii ñu ngi xaar boobee ba léegi ci ñaari affiche yi nga xamante ne ni wax naa ko benn bi ci njëkk dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu ci bëree bëri bu ñuy wax ci combat boobu dañuy wax ni combat mystique la maanaam combat la boo xamante ni gàllaaj bi def ci fas yéene bëri ndax da gis lu mel noonu. waaw Modou Lo ak Ama Baldé seen combat bi mystique la loolu ku ci bëgg xam dara. du ma ko leeral numéro baa ngi noonu soo ma wooyee wax ak man ma wax la lu leer. Mhm. dafa jaay sama xam-xam. Mhm. suma ma déggee sa galan wax mooy que ni seetkat yi comme li ñuy faral di def bëgg bëss wala bëgg seen tour wër àdduna war ngal kap euh, tax ñu génn na diw mooy daan yow tax men doxo ci lool doxuma ci lool ndax li ngay jaay moo lay jaay hmm. man waa bitim réew ñu ngi may dégg waa gambi ñu ngi may dégg gambi nekk naa fa 25 ans ñoom ñëpp ñu ngi may dégg hmm. ku ci nekk rek soo déggee sama baat xam nga man maay kan ak samay kàddu mosuma wax loo xam ne mu ngi doñ duma yàlla nag hmm. waaw mané yalla mom jaglé na ma loolu. effectivement ah, tey si day ki nga xamanteni ni pour mu xam kan moy dante digënté modulo ak Ama balde euh, est-ce que bu jokk ak yow paré nga pour ni ko diw moy dal ku jokk ak man dina la ko wax wané ni ni ni duma ko mëna wax ndax légui mm-hmm. dañoy xewal so jaayé sa xam-xam. Mm-hmm. ma nga wax dara né moy am. Mm-hmm. ñu def fexé ba daanel la ndax da leen di jaral lu ne ndax dañoo mënul dara motax waaw moo tax léegi man duma jaay sama sama xam-xam mhm. waaw ku ma soxla daal numéro téléphone baa ngoog soo ma wooyee ma wuy la boo waxee man ma wax la lu leer muy lu am solo yow mi nga xamante ne yow yaa safoo maa nga safoo ki nga xamante ne ni moo bëgg a nekk roi des arènes di Ama nga bëgg a a jàppale sa ko numéro soxna Gende Diop moo affiché wu loon ci bas écran bi yaay booy bi moom faaw nga la daanaka laale nañu ñaari yoon ñoom ñaar bu njëkk ba dañoo témboo sa morom ba ca topp ki nga xamante ni moo di Eumeu Sène daal di koy daan mu mel ni nag Dakar bu sax ñetti yoon loolu la ko Lac de Guiers tontu ñëpp ne nañ Lac de Guiers numéro 2 mooy daal ndax dañ koo gis. mënaguma cee leeral dara ku ci bëgg xam dara rek numéro baa ngoog. ah mais yaay na dëggante Eumeu Sène ak Eumeu Sène daanaka doole ji fi mu nii jeex na loolu moo tax ñëpp xalaat ni Lac de Guiers moo koy daal. mbër dina màgget ci gàllaaj ci doole. Mhm. wax ne du màgget ci gàllaaj gàllaajam na. ndax gàllaaj mhm. mun naa téye nit fa mu taxaw te du buuse loolu man mii xam naa ci dara boroom du mën a teg tànk ba beneen di ko fekk si ak njuumte la ci yow mi nga xamanteni ni da ko koo rek ci doole japp ne fim mu nak da Lac mo upp ki di ëmb seen doole ba ni tax nga ni mën na ko daan comme ni ko sunu yaay boy waxe rek mbër mën na magget ci doole waye mbër du magget ci ay gàllaaj te itam nag ku la mag la ay sagar lolu la wolof lepp li lañ leen indiloon mbokk yi tay gis ak émission ëttu xam-xam ñu do won bu fi ci diwaanu yaraax ki ñu togal doon waxtaan ak mom di setkatu yi mag ku duppé par la force mu neex mu nakari kep ku ci am lo ci sikki sakka numéro bi mo affiché wu ci ba écran assurance jox ko jokkoo ak moom da lay wax luy tàkk te du fay wax la sa démb sa tey ak fan nga jëm ëllëg di leen jox diggante ay bis yi ñëw ci beneen vidéo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi ci nekk et maintenant bon visionnage.